tey dañu am mbégte véritablement ñëw xool un peu la préparation bi nga xamante ne nii sunu service yi euh, engagé nañ ko ci ndigalu président de la république comme ni ngeen ko xamee dafa bokk ci projet bi nga xam ne son excellence le président Bassirou Diomaye fay daf ko mettre en avant mooy Sénégal dañu fas yéene jublu ci setal sunu réew jublu ci changement de mentalité ak changement de comportement boo xam ne dañ ci ànd ak askan wi ngir defar suñu dëkkuwaay fagaru faggu lépp loo xam ne rek mën nañu andil ay jafe-jafe moo tax journée bu am solo boobu nga xam ne ci yàggul dara dinañ ko lancer de manière officielle tey nag ma ñëwoon en tant que ministre avec mes services ñu préparé wu xool revue équipement yi ak lépp loo xam ne rek soxla nañ ko ànd ci sunu jàmbaar yi nga xam ne ku ne xam na leen ci seen farlu ci seen dëggu ngir setal sunu sunu réew donc looloo nekkoon tànk yi may jaajëfal ñu ma fi fekk fekk naa fi ay doomu Sénégal yu am jom am fulla bëgg li ñuy def te taxaw pour accompagner véritablement changement bi nga xam ne dañ ko bëgg ci sunu askan mooy askan woo xam ne day sàmm dëkkuwaayam day sàmm environnement am day góor góorlu ci cet ak cetal ba noppi continuer nag di ko def régulièrement donc looloo nekkoon tànk yi di leen gërëm encore une fois ci seen taxawaay di lancer vraiment la mobilisation surtout au niveau des collectivités locales et des mouvements associatifs que ñun ñëpp ñu ànd euh, topp cette dynamique là dynamique bu nga xam ne changement la ñu bëgg dans notre environnement dans notre cadre de vie